juróomeelu xaaj bi ci juróom benni xaaj yi bi yeesu di tollu ci fanweeri atam mu dem ci ya ngir mu soob ko ci ndox bi yaxya gisee yéesu mu ne xool leen kii mooy motem yàlla mi ñu nar a ngir dindi bakaaru àddina injilu màcc nee na bi ko yaxya soobee ca dex ga yéesu génn ca saasa asamaan yi daldi ubbiku te yaxe gis xelum yàlla wàcc ci melo pitax ñëw ci kaw yéesu te baat bu jóge asamaan dégtu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex ba ñu soobee yéesu ci ndox ba noppi xel mu sell mi yóbbu ko ca màndiŋ ma ngir seytaane fiir ko fa yéesu nekk ca màndiŋ ma ñeent fukki guddi ak ñeent fukki bëccëg te lekkul seytaane fiir yeesu ñetti yoon waaye taxul yéesu déggal ko yoon wu ci nekk yéesu tontu seytaane li mbind mu sell mi wax noonu seytaane wàcc ko fa ay malaaka ñëw ngir yiir yéesu gannaaw bi seytaane fiire yéesu yéesu dellu galile di fa jàngale ci jàngu yawut yi ci kàttanu xel mu sell mi ñu bare yéemu ci moom léegi ma laaj leen juróom lan moo xew bi Yaxya soobee yéesu ci ndox xelum yàlla dafa wàcc ci moom ci meloo pitax sol ko doole baat bu jóge asamaan dégtu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex juróom ñeent loolu lan la nuy won ci mbirum yéesu xelum yàlla dafa ko sol doole ngir mu def coobarek yàlla yéesu du yonent rekk mooy doomu yàlla ji di musalkat bi yàlla dige fukk lan la yéesu def bi ko seytaane fiire daan na seytaane ci kàttanu kàddu yàlla gi